jëf euh, mbokku téléspectateurs yi seetaan euh, Mbour TV ñu ngi fi nag euh, ci àll bi li ko waral nag mooy tey ji nag Mbour TV dafa déplacé wu ak équipe am pour ñëw nag xam coow li nga xamante ni moom la ñuy wax fan yëpp ci Ndingler mu jox nag ci diggante ki nga xamante ni nag moom mooy Babacar Ngom bu Sedima ak askan wi nga xamante ni ñoom ñoo dëkk ci ndengaleer évolution bi nag maanaam mooy nit ñi commencé nañ li nga xamante moom mooy liggéey bi ndax nag euh, kooku di Babacar ngoom am na benn tracé bu nekk nii sama ginaaw moom ngeen di seen euh, moom la def ngir nag askan wi nga xamante ni ñoom ñoo doon jógee Ndengaleer euh, di dem Jilaax dootuñu mën a jéggi pour dugg ci li nga xamante ni nag moom mooy tool bi ndax nag am na barrage boo xamante ni gis ngeen ko nii sama ginaaw benn kàmb la la ñu wëralee lépp li nga xamante ni périmètre la boo xamante ni ñoom ci la ñu fas yéenee liggéey mu tax nag nit ñi dootuñu mën a accéder ci li nga xamante ni moom mooy tool bi xamante ni war ngeen koo xam euh, ci coowul ndengaleer li euh, Mbour TV la à portée de clic dina leen ko indil waaye tamit dinañ leen wax tuuti ci historique li nga xamante ni euh, moom mooy ndengaleer askan waa ngi fii dinañ ànd ak ñoom ci biir tool bi xool évolution bi. coow mi coow mi lépp de Babacar ba moo ko indi ndax daa ñëw te sunu tool yi ah moom ci boppam amoon na jamono fa mu ñëw fii mat na ñeent at ci ginnaaw wala juróom at bu mu fa ñëwee mu ne waa sëñ dañ maa dogale ah, tool foofu diggante si ak euh, njagg ñaaw léegi nag bu mu fa ñëwee sunu chef du village moo ngi wax ak moom man ne ko daal damaa bëggoon daal ñu liggéey sunu pa euh, nijaay ne ko daal man daal man ma man maa jox sama suuf dañuy dundal njaboot waaw waaw mu ne ko kuy dundal cuuc ak ku daal dundal euh, kii ay nit bokkul waaw mu yëkkati 2 millions di joxe njëg góor mu ne ko du ma jox jël njëg góor gi. waaw jëga goro ga daal du ma ko jël sama suuf moo ma gënal loolu waaw ma toog ba diir ak ñeent at yoo juróom at ba mu fa ñëwee ah ñëw rek attaqué indi sandarma ñu monté ci àll bi fekk ni bu ñuy ngoob fii ramas nañu ñu ba ñu ni fanaan nañu foofu sax bu bot set waaw ak ñeneen ñeneen léegi nag mu wal ba këdawaat indi ay bile dëgg gas pax mi ba ma dem ci kaw kenn mënatul dugg nit mënatul dugg ah béy tul dugg nag bu mënatul dugg dara mënatul dugg daal waa dëkk ba kompaloo ñëw suul yoon yooyu nag yi mën a dugg nit yi mën a dugg du duru ji di ñëwaat di leen euh, jàppaat ñu waxtaan mu ne maanaam bés ni tey daal nu ñu waxee nit yi daal mu ne du ngeen dugg noonu la ñu def ak ñun ba léegi pour ñun taxaw suñu suuf di du ko nañ koy tare waaw sa ba Bakar nañu bàyyil sunu tool yi moom la yaakaar tey ak ëllëg waaw fi mu ne liggéeyoon tey liggéey na ngoon maanaam nun ba léegi ñu benn suur na sax waxatuma weer waaw léegi nag mbéy la ñu yaakaar tey ak ëllëg moom lañ dundal suñu njaboot waaw moom lañ ko doon béy waaw waaw maama ah, maamaat yi ñoo ko doon béy ba ba nun ni dëkk bi fii la jëkk woon sax jamono bekkoor Abdou ah, ah, Senghor ci la daj dem ñëw dajuloo fa la ndax manquement mi waaw am gi dañu tere woon pour maanaam kenn mënatul dugg waaw kenn maanaam pour ñu mboob wala ruuj wala sàmm ay sunu nag gi loolu kenn mënatu ko woon waaw ni waxtaan waa dëkk bi ñëw comme dajaloo ñëw suul ko pour ñun mën a dug de ruuj nag mën a dug de de lekk waaw buñ ko defee noonu mu wal bëgg waat yebaloo ay bill bi mu suulaat yoon bi mooy ni waaw waaw ci problème problème bi ci moom la ñu ne waaw waaw waaw kam gi moo tax man man ni man ñu dem jilax sax waaw dañu ko baara complètement daa sis wa sus pa forage ah, bu mu nekk sanjara ba antara ah, ki kibik njëkk ñaaw waaw da ñaar pax boobu la ko def mun ko dëggan ah, la nga leer bëgg dem jilax mën a toog def juróom fukk nit yu tegu moom la moom moom ñëw fay bay waaw waaw waaw juróom juróom fukk nit yu tegu waaw yu tegu tegu sax ñëw fay bay waaw ba baax a baax lan ngeen bëgg lan ngeen bëgg waaw nun dañu maam nun lu ñu bëgg mooy nañu jox sunu suuf nañu bàyyi sunu suuf ñu koy bay nun ko daan béyee ci sunu maamu maamaat dañu rawal njaboot rawal njaboot la ñu ne utuñu alal waaw nañu béyee sunu suuf sunu suuf moom la ñu ak eleg ñoom dañoo a jël seen suuf boobu mu ne a béton bi ak ak xeer bi yëpp ñu ngi ci kaw ak fer yi mu ne dañoo bëgg def foofu ay bâtiment loolu la ñu bëgg def mu ne waaw jékki-jékki xëy ñëw ci toolu jaabur rek waxoo waxtaan woog moom fenn nga xëy xëy rek di sotti suuf ah loolu foo ko teg waaw mu ne yoon moo ko jox waaw ci loolu la ñu ne waaw. waaw nun sunu bakkan lañ ci teg Babacar daal nañu suul nun ñëpp wala ñu dugal ñu ñun ñëpp si kaso kaso bi nun waa dégg bu bi yeboo na préparé dugal ñu kaso ñenn ñëpp suul leen waa looloo tax ñu mën a béy tool yi de waaw waaw bu toll loolu ah nañu béyal suñu suuf yi moom la ñu teg suñu bakkan tey ak ëllëg waaw mu ne béy xar nag yëpp ak fas ñu leen mboobal ñuy béy si yëpp waaw amoon na jamono ken mën tool jàll ci camp bi dina dajaloo ñëw suul suul yoon ba pour nit mën a jàll waaw am amoon na jamono nit manu manu fi jàll waaw lool loolu de Babacar lool la def da koo baar complètement déggante Apalarewa ak forage Sandiara bi bu ñu tuddee kii bi njëkk ñaaw da gas ko ba mu xoot lool kenn mën faa jaar. léegi problème bi lan lan la Babacar Ngom ñëw na fii. bu mu fi ñëwee xaw ma ñetti at la xaw ma ñeenti at ñëw na fii ci biir Ndingler bu mu fi ñëwee dafa ñëw ne dama bëgg ñu liggéey keroog bu mu ñëwee ne dañoo bëgg ñu liggéey waa dëkk bi dañ ko ne ñun soxlu ñu liggéey dañoo soxla béy suuf si mu ne da ngeen may may ñu ne ko maye wuñu mu yekkati deux mille yi mille ñëw yi jox chef du village chef du village ne ko tant que man day joxuma la suuf waruma jël sa xaalis. waaw. léegi lu ko dugal ci suuf si. Sinja lu ko fi dugal. Mhm. ah Babacar Ngom waa ji la xam nga Sinja la lañ ngay gis. da bâtiment yàlla ngay gis moom la Sinja joxe. léegi Babacar Ngom bu mu ñëwee dëkk ba né defoon waa si lañ ko natal ñetti téeméeri hectare muy nat muy nat muy nat bu nat ñaar téeméeri hectare ak ñaar fuk mu né déssana naa juróom fuk hectare bu mu naté nak juróom-ñetti fuk hectare mu né suufu wa né nga jël euh, njàgg ñaaw la bok mu ñëw dina di waxtaan ak wa né nga Ndingler moy problème mo moom waxoon waxoon légui nak mo moom loolu lolo ko dugal fi lu ci tegu mag ñi fi woon dekkoon fii fale muri ak muram fa lañ dekkoon ñooñu waa nengaleen lañu fii mañik ak kookool ñoo fi dekkoon fee ndolaan fooful la kon ñun boo ñëwee bu ñëwee fii di nangu suñu suuf upp doole moo mën a am na waaye waa jilax moom moo ñu fi benn pepp suuf waa Ndingler yëpp fii lépp tool yi gis nga palaare wa gale fa la tool yi jëlee fa tool yi fa la jëlee palaare waa bul dale ci ginnaaw suuf sale foo tool yi dale sis ak Babacar Babacar sis digaloon nag moom ñeenti at muy béy suuna ñun ñuy béy suuna ak bokk moom muy béy mbokk ba ñeenti at ñun ñi itam liggéey nañu fii lu ëpp bu ma ñëw sax fii la ñu fekk ñu jooy boole suñu suuf loolu nag duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg ñun nag ñu ngi koy xaar fii keroog def nañu fii mobilisation bu rëy ñi xam nañ ci dara keroog bu ñu ñëwee fii dañoo dog ba ci suuf si su tey dinañ dugg fële suuf si gis nga ba tam euh, lale dañoo bëgg mool waaye bu ñu paree ci lii xale yi dañuy dem ba ci ba fële dinañ dinañ dugg ci biir mënuñ koo tere. waaw mbir mi maanaam ci li ma bugg a wax ci ñëwu Babacar Babacar ci dëkk bi Babacar bi mu ñëwee ci dëkk bi ah, maire bi la àndal maire bi bi mu ñëwee dafa wax waa Ndingler kii de dafa ñëw foofu ne dafa am foofu tool li bi mu natee mu am quatre-vingts hectares yi nga xam ne yéen a ko moom mu ñëwoon fii nag pour mu waxtaan ak yéen ndax man de ma wax ma ne danga nga dem nga waxtaan ak waa Ndingler bi mu ñëwee loolu la wax mu ne am ngeen ci tool bi 80 hectares man li ma ci jaaxal 80 hectares yooyu kenn ci waa ndengaleer fekk bi muy natt loolu kan moo ko wax nag 80 hectares waa Ndingler mu ngi ci biir ba mu ñëw Ndingler mu ne mayleen leen ma mbaa ñu bokk liggéey chef de village bi nee ko ñun dey ku ñu mën a bokkal liggéey muy ñu ku ñuy diggaloo comme ni ñu defoon ngay béy li nga soxla ñun ñuy béy li ñuy soxla di sàmmi ci sunu tool yi amuñu pexe amuñu doole mënuñu liggéey ak tracteur kon mënuñoo bokk liggéey mu wax wax wax mu teexle foofu sottiwul mu yónni doomam ci oto bi mu dem indi ombalog comme lu kii wax jox chef de village bi ne chef de village am teyal lii deux millions la mën na jënd guru chef de village bi ne ko njëgu guru deux million xalaatuma ko jël defaluma la dara ba di la jëlal njëgu guru deux millions ñu dem dem dem dem muy liggéey lu mu moom waa dëkk bi liggéey lu ñu moom ñuy liggéey liggéey liggéey ba ren gi mu ñëw rek commencé fekk gaa yi ku mu fekk ci sa tool ngay góob sandarma yi yóbbu la mu indi fi ay ay sandarma xaw ma ay sandarma la xaw ma waaye force de l'ordre la ñu japp di di jàpp gaay di yobbu commissariat légui mu ñew ba mu gasaat kamb wi kenn manatu la jaar sunu mbokk yëpp yaa ngi jéela mënatuñ fa dem ndax li légui nak bo ci fan yi gaay ñew sét ci si liggéey bi ah, mu am ah, boy bu wax mu ne domam la man xawma ma la xawma ma abib na la tuddu mu ne chef de village bi dama bu ngeen ñew ñu waxtaan bi ñu ak chef de village bi ñew mu ne nan ngeen bëgge ci seen tool yi chef de village bi nee ko ñun kay dañu ñëwoon pour ñu déglu la ndax ban waxtaan nga ñu indi mu ne dama bëggoo bu bu dee d'accord ngeen nu ñu mën a liggéeyee tool yi ndax maanaam tool yi nekk ci biir mënatuma leen génni mënatuma leen génni mu ne ñaata tool ngeen fa am chef de village bi nee ko manuma toog bii maag yow rek ma di la wax ñaata tool laa am ci biir manuma loolu te kon du am seede chef du village bi nee ko loolu mu ne dama bëggoon daal ñu seet ngeen seet ban pexe moo leen ganal comme nu ñu mën a liggéeyee ba altine bii passé la de xam nga ne kon loolu yàggul boobu ca mu ngi te liggéey rek ndax booy booy wax nit nañ waxtaan li nga moom nañ ci waxtaan too nga continuer ja yor ko do liggéey dee ko duutuma la ko mën a jox ka dangaa mën a ñëw ñu waxtaan daal waaye duutuma la ko mën a jox man waxin yooyu moom moo ma jaaxal ci mbir mi te fii ku fi ku fi ñëwoon ay sandarma yi ñoo lay yóbbu ay sandarma yi ñoo lay yóbbu waa dëkk bi nag ah, fan yi lañuy def mobilisation ñu ne suñu tool yi riw jot na amuñu pexe nañ fa dem ginnaaw amatuñu pexe nag nañ fa dem bekkoor moo ñu moo moo yóbbu suñu maam yi fee waaye fii ma lu nekk ci diggante fii ak ndengalee diggante fii ak kiri lu ci nekk ci ay gente mën ñu la ko woñal mag yi dañu tasaar woon ñoo ko gor lu téeméer at ak nangam fii lañ ko dekkoon fii lañ ko dekkoon séeréer nag maanaam cosaanam fii la sama maam dekoon foofu la def maanaam fii maa ko moom loolu moo ñu indi fii waaw. comme foofu bi bi ñu góobee tool yi ba pare ba affaire bi yëngu kenn nekkatu fi woon bi corona bi bi mu ñëwee kenn mënatu la génni ne nit yi nangatuñu def mbooloo boobu la mobiliser mu jël ay garde bàyyi leen fii ñu ñu tere amul ku jog ñeme jog ndeng leen sàmmi fi walla walla nga nga dugg ci biir tool yi sax sa sa tool fi mu nekkoon se nga dem foofu nangatuñu loolu xam nga ne ñooñu mu leen wax loolu rek mu leen yebbal loolu loolu daal waaw ñun nag lu ñu buggoon maanaam ñun daal ñu dellu suñu tool yi daal loolu daal moo ñu indi daal waaw ndax cosaan la cosaanu sunu maam yi lañ ki dekkoon euh, kooku mu lay wax muram boobu ba balaa nga xam ne loolu yàggul muram boobu am na doomam bi nga xam ne muram moo ko jur muram moo ko jur ba léegi mu ngi dun dafa màggat man dafa naax léegi mu ngi dund ba léegi waaye mu ngi ci dëkk bi waaw Euh, gis ngeen nag euh, liñ leen ko waxee woon tracé bi nga xamante ni euh, loolu la ci askan wi wax nit ñi dañ daan jóge fii di jéggi di dem fële waaye fu mu toll nii mënatul am ndax nag sareet mënta jàll moto mënta jàll vélo mënta jàll tànk mënta jàll li nga xamante ni sax jotoon nañ ko fee fàttandiku su néew nit ñi nag ñu ngi koy dindiwaat pour bañ a nit ñi war a jéggi dugg ci fi nga xamante ni moom mooy tool bi bu ñu jógee fii nga xamante nag moom mooy tool bi nga xamante ni moom moo jur coow li dinañ dellu ci village bi ñu wax ñu historique village u Ndengeléen Ndingler lépp loo xamante ni waroon ngeen koo xam ci Ndingler eh, di ko xam incha ci Ndingler eh, gis ngeen tool bi kenn mënu fee dugg ay garde ñoom ñoo fi nekk dégg nañ ni sax eh, ñi nga xamante ñoom ñooy bu fi askan wi di ñëw maté ñi nga xamante ni ñoom ñooy askan wi waaye loolu lépp incha allah dinañ ko topp vérifier ko xool ndax liñ ko waxee noonu la ndax nag benn kàddu rek duñ ci sukkandiku incha allah kooku di Babacar Ngom bu Sedima bu ñu jógee fii moom tamit dinañ jokkoo ak moom bu dee am na ay leeral yoo xamante bëgg na ko ci leeral euh, ñu ngi koy ubbil li nga xamante ni moom mooy sunu micro pour ñu wax ñu coowu ndengaleer yi parce que nag euh, bëgguñu coow li dégénéré ba nit di fi ñàkk bakkanam te askan wi nga xamante moom mooy seen suuf euh, solution bi nag mi ngi ci ñi nga xamante ñoom ñooy ñaari communes yi muy commune bu Ndiaganiao ak commune bu Sindia waaye tamit mi ngi ci njiitu réew mi nga xamante moom mooy président de la république son excellence Macky Sall yi ñi ngi doon wax ci feebaru coronavirus bi nit ñi ñu woon euh, dara ndax coronavirus bi ndekete yoo nee nañu moom Babacar euh, bi nit ñi nekk yëpp ci coronavirus bi moom ñëw na fii indi fi ay nitam waaye tamit gas fi kàmb goo xamante ni day permettre nit ñi bañ a dem euh, ci tool yi loolu lépp dinañ ci jokkoo ak moom incha allah bu dee bëgg na ci indi ay leeral dinañ leen ko toppal ak Mbour TV ñu dem ca village ba waxtaan ak chef de village bi. ma ne hey baykat bi xalam demoon na bay neex waaye buum nga dog na moom hey baykat bi xalam demoon na bay neex waaye buum nga dog na moom la neexee dalal say loxo yaay docteur bi pàcc ci fu askan bi li ko si njiitum réew ba ci miskin yaa summe di daan sa doole ànd ak naaj bi di liggéey sa ñaq di tuuru ngay bay di duggat billaay yaa am jom kon jaaraama baykat fexe yaa ko dundal ba mu suur ni waaw ku fi feebar yaa ko nandal ak i reen ba mu feer kon jaaraama baykat ku fexe yaa ko dundal ba mu suur ni waaw ku fi feebar yaa ko nandal ak i reen Voilà, de voilà jërëjëf euh, euh, Mbour TV ginaaw nak euh, biñu joggé feulé ci ca ya manam tool bi nga xamanteni ni am ciow diggante Babacar Ngom bu Sedima ak askanu Ndengaleer ñu joggé fa nak ñëw fi ci village bi fas fe waxtaan touti rek ak chef de village bi mu wax ñu historique dëkk di Ngengaler sëñ bi la. Ablaye Dione. Ablaye waaw góor gi góor gi Ablaye yow ñaata at nga war a am. man xanaa mu jël juróom-ñaar fukki at. am nga juróom-ñaar fukki at. juróom-ñaar fukki at dagg ak juróom-benn la war doon. de village sama doom moo moo ma remplacé léegi. parce que maa ko nekkoon mais daaw laa ko bay. Mm-hmm, daaw nga ko waaw dëkk bi nag. nee ma comme lu gàcce ngaalaama li nga fa liggéey rafet na ah, baax na léegi daal kon jël nañu sa doom daal teg ko fi nga nekkoon. waaw léegi nag ah, suñu problème bi daal mooy suñu digganteeg Babacar moom ci boppam at yàlla mbar naa tolloog ñeenti at mu ñëw fii fekk ñu fii ci suñu penc même ànd ak maire bi. ñu ngeen jox ñu suñu quatre-vingts hectares yi nga xam ne moom la moom ngeen am poobu ah, ñu ma ànd ak yéen di liggéey parce que man dinaa leen defal courant dinaa leen defal ah, euh, euh, oui man dinaa def foofu usine boo xam ne day def anima pour li ngeen béy mu jend ko ah parce que moom ma ma ne dundal sama cuuci ñu joge ci loolu mu ne ko man day nun ci suñu bopp tool yooyu la ñu yaakaar tey moom la ñu yaakaar suba léegi daal tool boobu daal soo leen foqal ci wul ci suñu loxo duñ ko joxe tey duñ ko joxe ëllëg cuuc yi ngay wax yow dund cuuc ngay wax man dund nit lay wax fu nit yi di dunde foofu lay wax man nit laay dundal dina lu ma cuuc de te yow ci sa bopp Babacar tool yooyu suñ ko joxe tey fu ñuy jëm kon dara du ñu jar dégg nga ñu def noonu gisatuñ ko gisatuñ ko gisatuñ ko ba mu tolloog ñeenti at tey mu ñew ren nag rek attaqué mu ne daa am bay daa am tiitar conseil ne ko doo ko amee loolu amoo ko ci suñu attarweeg hectares yi woowa suuf duñ ko joxe tey duñ ko joxe ëllëg mu yaakaar suufa ni soo koy jël di nga war a toog ak ñoom ba xam ndax nangu nanam nanguñu waaw mu jékki-jékki rek ñuy góob ñuy góob bu ñuy góob mu am xel yoo xam ne dañu ñëwoon digg wut ñax boo xam ne dañu bugg a xat sax seen néeg amuñu fa tool sax ñu jël yooyu yóbbu leen tonal moom ñu gonto bi dem indi leen mu amaat beneen bés ma ànd ak rajo bi ah, fii Walfadjri biñ demee ñu ne ma waaw yaa ànd ak ko waw mo ne ma yaay seen gis ñu ne waaw waaw sama tool yi suñu tool la mu ne ma ndax am nga kayit ma ne ko wax dëgg aw ma kayit mu ne xaaral ma woo sama kilifa ba xam ndax di nga mën a defam déet te ndax ku ma sama bu ñëw nee dem leen ñibbi du ngeen mën a manifester ah, waaw ba tey comme que day li ngeen wax moo mën a am ndax yéen yéen ñu boot man ñoo bañ dara noonu lay def ñu jiit jiitlante di ñibbi am juróom waxambaan yoo xam ne nag dañ faa des bugg a seet seen tool yi ba toog a ñibbi ñu kar ñu nag jàpp leen yóbbu leen buur ñoom ci leen bopp tax nee nañu rax wax leen door nañ leen tax door nañ leen tax doog yóbbu leen buur té ñoon dañu joggé ci suñu waxtaan bobu rek di dem di buggatee ci seen tool yi ñu kar bobu rek yobul leen bu ñu demaat jëlaat ñooñu ñibbati ñu amaat benn bés ba suuru àllarba la sama doom bi nek jaraax bi am bobu santaan bu mu amé santaan bi it am saraax ba nekkoon wala njagi ñaaw ah fabu naa ba ma ne ma sama xel daal yaakaar na bu man dem jegi ñaw parce que ñu ah, tool yi mel nañu waaye boo xam ne comme sama doom am na booba tantaan li ma leen di xaar ba bàyyi rek li may yóbbante ci tarax bi noonu laa def it ma yóbbante dem ba booru onze heures midi ñu woo ma ne ma bi day jël nañ ko bu yóbbu mbuur ma jël sa sareet ak sama lakk ñu wàcce ñi tañ rek ñu dugg dem mbuur bi ma àggee ñu nee ma góor gi wax dëgg commandant di newu fi cuun bàyyam daa gaañu Kaolack mu nga foofu moo wax wax wax wax wax ñu te wax wax wax wax mu ti ñu fanaan foofu mu ne ma dangay ñibbi daal ba suba ak jàmm nga ñëwaat fajar rek bala ñuy nodde tenkee sax fekk départ nañu fi def directement Mbour ak sareet bi mbaam fekk leen tàngal mu ne ñuy wax wax wax wax ba booro onze heures ñu soog leen a génn mairie su boppam nee maa lay yóbbu ci sa ak sa waa yi capitaine bi ci bopam neema fam auto oto mo len yobbu yóbbu mu ne len ah mom dal lu yag yag yag yaakaar naa benn oto moo ñuy yóbbu ñu je dug ci auto mer bi bepp bépp ci gi fii dégg nga Babacar wax dëgg sonal nañu lol lool lool lool tëtuñu tool yi nun tëtuñu bopp amuñu leneen lu jëy tol yoon mom nak xëj nak histoire lu bëgg parce que su bëggul woon histoire kon baarna bay suñu suuf bu yekk par ce que koy ñaan ñaan ñaan ñaan ba ñaanatoo ah bu di porté keroog bi ma ko waxee tuuti ngay dundal doom bam dem ci oto bi indi deux millions nee ma góor gi ba tey njëgu guro di ma koy jox njëgu guro deux millions bi mu jox la ko njëgu guro mu ne ko man day fekk wu ma ñu di ko joxoo deux millions di ko joxoo njëgu guro man mosuma koo fekk ci àdduna déedéet mosuma koo fekkee gis nga deux millions bi. néegu dool yaa nga kolobaan lafañ yaa nga fa gumba yaa nga fa demal nga sarax leen ko te nga bàyyi ñu suñu tool yi loolu daal moo ñu ganal nga jàpp suñu tool yi yaa ñu man fuuf nag mais nag soo xoolee yàlla ak yonante bi nga war ñoo bàyyi ak suñu suuf ñu dundal suñu njaboot cuuc ngay dundal mais duñ luñ cuuc ay nit la ñuy dundal te dégg nga leen dëkk bu mag la tey lu tolloog ñetti junni yoo xam ne ci nit ah, war na ko weesu sax mais dama ko ci gàttal foofu laa ko mën a yem ñetti jëlee nit moom tegu na. bugg foq ci suñu suuf jaar ci suñu loxo foq ci ak dooleem. Mm. parce que garde yi ma fa bàyyi fan yële xale boobu garde yi yor ay lorbeer ak cartouche xale yi ne leen comme jox nañ leen fetel fetel leen mm-hmm. mais suñ tool yi duñ duñ fi jóg fetel leen lu ngeen mën a fetel daal fetel leen ñu wax wax wax mu ne la comme daal yor ngeen fetel te ne da ngeen ay fetel fetel leen mm-hmm. fetel leen feteel leen ñu def noonu nag ñu waxtaan ba gaañ ne noonu suñu bopp dañuy waxtaan noonu lu ñu am ci suñu kër rek la ñuy wut fii xeex yóbbu ñu fii xeex taxul ñu ñëw fii dañoo bëgg lu ñu yóbbu suñu kër rek ñu teg ñu fi pour xeex bi mais du ñu xeex du ñu xeex du ñu xuloo gaa yooyu nag wax dëgg foofu lañ jógee ñibbi ñëw ci penc bi fii ñu waxtaan ñu leen bu ken xeex ñi bunt la ñuy wut. su ngeen fa gaañee nit ñu jeetu ñu suuf waaw noonu ci doon bopp nag lool loolu weesoo dëkk bi moom tàndoog sax laay wax suñu gox gi ñaata village sax ñaata village sax moom kii tey ah quinze gox gi fii doon tàndoog doon tàndoog mm-hmm. bu muy wote def na fi kii nekk caay jaay Omar Youm mm-hmm. mu def meeting fii njagi ña njaaraw moom njaaraw mooy suñu capital mu ne baadool yi dañ bay na baadool yi ak seen i suuf ndekete yoo soriwul ci laa ma laa ma ñam soriwul ci de hmm? muk muk mu def noonu ñun waatandoog ñëpp jëm woteel ko cent pour cent amul bu rëcc kat benn carte rëccul dégg nga woteel ko cent pour cent soo ko wax la ko dégg nga lampa amu fi hmm. sonde sax takkul sandook dara defuñu dara ñun ñii nag ñu école bii ñaari école daal lañ fa am yoo xam ne moom la fa gouvernement bi indi mais lu ko weesu tuum benn partenaire tubaab xale bu dëkk Ndingler nekk doomu Ndingler moo indi tubaab bi ak tubaab bi am na fa ren xaw ma ñaar fukki at xaw ma ak ñeent defal nañu école yëpp ba mu bu école bi yëpp daj defal nañu kaas kaas boobu waroon naa am militaire tey mais tur bi rek ñu soxla. ak ku ñu fa jël mais tabax nañ ko ba mu pare lal yaa nga fa lépp nga fa ne ñu dara dañu wax a wax wax a wax ba ton wax nañ ko su préfet wax nañ ko maire dara ñu ci dara. dëkk bi dëkk bi di ndengaleer. ndengaleer nag ñaata ñaata ñaata ñaata gox euh, mo ëmb euh, ndengaleer. gox gi ndengaleer ñett ñeenti at euh, gox gi ki gale ki faamul tangay ki gale nak ngoko ci ndengaleer ki gale nekk xojjil ndengaleer ak guy laatu ndengaleer ba ci boppam nag waaw ñoom ñoo ndengaleer. yéen ci seen bopp. defa ñu ñu dara dara dara ci àddina. dara la ñu defagul dara dara def ñu dara de. da ci amuñu ci mbetteel de mukk mukk mukk parce que moom boobu ba tey dig nañu courant mm-hmm. dégg nañu ndox lépp mu dara ci amu ci. Mm-hmm. parce que weer na kuy ak bi ñëw ànd ak tubaab mu ne. affaire courant mu ne leen nun dañuy ron ci affaire courant bi dañuy ron ci affaire courant bi dinaa leen defal dinaa leen defal rek dinaa rek. te du jeex te defi wax wax rek wax kese rek te du am mukk loolu moom dañu cee sonn lool dañu cee sonn lool moom daal dégg ci ñu wax def daal la ñu seen fu mais dégg ci ñu wax. animation mhm. moo fi lu ma sañ sax moo fi nekk e gis nga awet maam yi sax mhm. mën a tudd njag yi njag ñaaw dañuy dem marché njag ñaaw bi. tase kii dañuy dem boobu loolu mooy suñu luuma mais Ndingler ci boppam. Uh-huh. amul benn luuma amul dara dara dara. keroog daa waxoon dañu ko wax ne Habib suñu tool yi ndax ma yow bay suñu tool yi man manuma koo bay ndax sama bakan laa ci teg ñu nekk soo ci tegee suñu bakkan noonu it ñu bakkan moom lañ ci teg uh-huh. moom lañ ci teg de parce que tool yi manoo mën a fexe nag bañ jox la suuf yii suuf yii suuf mu ne léegi kon dem ngeen ñibbi ngeen waxtaan lu ma demee it ma waxtaan tama baay bu ñibbee it ñu nee leen ñun tëdduñu bopp fu ñu jàppale ñu jàpp rek moom daal yoon moo mën a ñëw foqat ci ñun suñu tool yi nangu leen ci doole lool dem xëy na man na am mais ñun tëdduñu bop xalaatuñu xëy neen wax Babacar sax suñu tool yaa ngoogu ñaari ñu ko yàlla ñaari ñu ko yala duñ ko def mukk ci àdduna man naa nangu nag ndax moom doole la borom doole mën na koo nangu dafa am solo lool lool lool ndax dugub bi fa lañ yaakaar dugub ndax suuf si weex manul génne dugub suuf si weex mënul génne. bisaab sax suuf si weex mën koo génne loolu moo waral nag suuf soosu ñu jàpp ci soo su ñu demee ba jël suuf euh, dugub bi euh, ini jël mboq mi jël kii gerte bi suñ jëlee loolu yëpp ba pare su nekk ñu awaat ci foofu ñax boobu amoon foofu nekkoon nag. Mhm. mu ba ay mbuubeek yooyu ndari foofu la ñuy nooraat it di lekk waaw xam boobu njëriñ amul ab. Mhm. ndax nag moo ñu yor ndax su nawet jubul ci ndey lañ yaakaar jaay ma ne jënd dund. baa ko Babacar sa baay waroon na rus di xëccoog ñun ay suñu tool mhm. yor ay milliards milliards milliards ñun ci jëmi bopp yoruñu juróoma dem sax. nga taxaw di li nangoot yéen alal lool sax daa ñaaw loolu sa baay waroon naa def loolu mu ne ma sama baay buur a ko jox mu ne ko buur buur jox la suñu tool yi te wax ñu doon dara mu ne sama tool bale suñu usine bale yoon ndakaar ah, ah, tali bi foofu la jaar mu ne ko boobu tali bu jaar jaaree nag jël ngi am ngeen dédommagement bi tali bi bu koy def am ngeen dédommagement bi te xam naa ko hein, parce que Sénégal la hein, ba Habib xëy na da ngeen maa ëpp alal mi man Dakar la doon liggéey ya dégg nga ma nekkoon dañ doon wax bara di référer kilomètre di route de Rufisque dégg nga lu mu doon jaay kilomètre kilomètre cher radio fofu la télévision génn jekki Sénégal atam atam la bu sengo ki Robert ak tubaab atam la paré pare France foofu la ñu seetaane télévision boobu kon léegi soo may wax ne tali bi jël na sama toolu baay boobu man ma koo dégg su toolu buñ koy jel def na ci dara waaw mu ne ma daal dem leen waxtaani man ma waxtaani waaw ci foofu daal lañu ñu tàggoo moom ci boppam bi ñu gasee te euh, kambe ji man ci sama bopp sax ma ànd ak lañ ñu suul ñaari pax yépp yi ñaari yoon yëpp ñu suul leen bu mu ñëwee mu sikkaat ña tool yooyu keroog sax nee na ko go génneel tool euh, kii bi kambe gi suul ko suñu yoon bi ma ne génn mu ma dinaa ko suul mais bi ba euh, keroog bu ñu ñibbee mu nekk waaw booy bi ndax suul na kambe yi mu ne suulu ko de suulu ko de xam nga ki soo gisoon ñu def kambe gi dañ faa tegoon gendarmerie ku mu ñëw ñu yóbbu la Mbuur looloo tax kambe gi am hmm. mais nekkoon ay civil nii rek ñu ko toogoon kon kambe gi du am mais xam nga dañ koo ko machine bi dañ koo escorté loolu tax ñu gas kàmb gi de mais nekkul woon gendarme yi man noonu wax a wax a wax a ba ñu gas ko dañ nag daa monté boobu ay nit ne waa Ndingler bu amul ab naan tax mënuñu ko lekk bu suur tax mënatu ma comme fi mu ne yàlla xam na ko damay reer maanaam laal sax reer bu tuuti rek mais damay man naa xool di bot ndax xalaat rek ndax lii mosuma koo gis ci àdduna mukk mukk mukk mukk ci àdduna mosuma koo gis man ci bopp dinaa ko wax ne nun bett nga ñu ndax nun dañ laa woteel cent pour cent nga jàppale ñu ci baadoole yi comme ni Senghor bi defoon ndikete yoo yaakaar bi ñu yaakaaroon ci yow daa tas nitam nawet bii mu wax ne baadoolo boo gis mu jàpp rool bi ko gis ñeenti téeméer te boo bokkul nag ceeb ba mu joxe bu barka la mais kii ñëw ne bokkat ci suuf rek jël suuf si jox ko borom xaalis wax dëgg ñun ci bopp daal sonn nañ trop mu ne dama am tiitaar foofu tiitaar foofu nag nee na président ba moo ko signé man a ah, si na loo xam ne day suñu tool yi la. Mm-hmm. waaw suñu tool yi de moom la signé kon ndax ñun ci fu mu def de quatre-vingts hectares yi nga waxoon moom ngay ñaan a ah, wax dëgg foofu day moom ñun ñoo ko moom soo ko soo ko defalee kayit it ñoo ko moom. Toen kijk je even wat je lezen. Mm. Even wat je lezen, kijk. Wie zijn ze nog gedaan met je zijn toe? Moet je het keren houden. Ga maar nog niet. Lullen jaren def net. Moet net jaren gaan. Lullen jaren def net. Nu hebben we jaren gedogen. Maar dan, jàppale bi daal li ngeen ci mën a jàpp ak li ngeen ci mën a wax ngeen ngan ñu jàppale rek te yàlla tax mais président daal bett nañu lool daal dëgg dëgg dëgg bett nañu de ali jëwen man mii dama doon dugg sare sax dem di campagne bi ma nekkee mag yëpp parce que baat bu Omar yu mbaxee bàyyi leen baadoolu ak seen suuf dama koo gimoon lool bu amul ak dëgg-dëgg dama koo gimoon lool waaw waaw ci gàttal daal. Mhm. waaw dëgg loolu moo nekk nag gis nga teen yi amuñu ndox. Mhm. dangay yor nag wug wug wug wug wug ba gën a yaakaar dinañu dinañu mandi teen bi jeex faaw nga jën ci robinet bi mën a naanal mhm. waaw. te robinet da ngeen ci jënd wa dañ koy jënd robinet dañ koy jënd euh ah, bidon yi ah, bidon ñaari ah, eh, bidon yi juromi dërëm man koy jënd am ñoo xam ne sax ñàkkee ba ñàkk ndax dañ koy jënd sax benn bidon fukk dërëm yëpp dañ koy benn robinet rek a fi am benn robinet ñetti robinet moo am ci biir dëkk bi yëpp ñetti robinet yëpp bopp bi ak bopp bale ak bopp bi ñetti robinet yëpp te doyul sax parce que su ndox bi su sandoog ubbee suñu eh, tirage bi day day oyof fii day oyof fii tuuti lay ñëw indi guddi daal moo fa tànn sax ndox guddi su demee ba guddi nga xam ne ñu nekk teel ci kaw ga daal eh, fermé nañu mu toog ñëw ñëw normal personne bi toog maa ñëw normal waaw. ñoo ko déggandoo dégg ngeen kaddu yi ki nga xamante ni moom mooy eh, chef de village bi mu nekk nag ay kaddu yoo xamante ni kaddu yu daw yaram la interpellé na directement ki nga xamante ni. moom mooy euh, njiitu son excellence euh, monsieur Maxal, président de la république euh, ngir nag ñu dimbali leen ci seen suuf si nga xamante ni seen i la woon ñu ko doon bay di ko bay ba léegi Nous di ci dund di ci dundal nga xamante seen amuñu courant amuñu yoon amuñu poste de santé amuñu marché amuñu dara seen souf si nga xamanteni mom lañu am mom lañu dundé mom lañu dimbalé ñi nga xamanteni ni ñoy seen ben tay ji nak ben borom barké ben borom doolé

nit ñëpp waroon a concentré wu xeex benn xeex muy jële fi combat bi waaye ndekete am na ñeneen ñoo xamante ni ñi ngi xeex ci suuf ngir nangu suufu askan wi mu nekk loo xamante ni lu yéeme la lu daw yaram la boo ñëwee fii ci village bi boo ñëwee fii ci dëkk bi sa xol sax day jeex doo bëgg lu dul jooy ndax boo gisee li nga xamante ni loolu la am nii ci seen suuf yaakaar ci dund dundal ci seen njaboot dundal ci seeni jur benn borom barke benn borom alal bëgg ko foqati ndax lan dundal ay cuuj li chef de village wax léegi Mom ay cuuj la xalaata dundal mais ñoom lu ñu dundee la xalaat dundal ay doomu adam la khalat. xalaat nañ delloosiwaat xel yi delloosiwaat xol yi delloosiwaat xalaat yi borom barke yi sonal nañ ñi nga xamante ni ñoom ñooy néew di doole yi lañ leen ak seen suuf seen suuf lañ am pour dundu, am nañ alal nañ dem fa nga xamante ni fa la ñuy jaayee suuf ñu dem jënd suuf am na ñuy jaay suuf nañ dem foofu ñu jënd suuf ñii mayewuñu jaayewuñu saraxewuñu nañ leen bàyyeeg li ñu moom gumba nag boo ko saraxatul bàyyi koog yalwaanam mu nekkoon reportage boo xamante ni defaloon nañ leen ko tey fii ci Ndingler di ci interpeller directement le président de la république son excellence Macky Sall ngir mu wax ci problème bi bala moo jéggi dayoo ndax ñii ma gis parewuñu pour bàyyi seen suuf